ma daaneele nag ci xibaar bi ñu jotandoo ñun ñëpp ni yokk nañu nombre député assemblée nationale jóge na cent soixante cinq dem léegi cent soixante douze kon yokk nañ ci juróom-ñaar ñu wax ni ki fi nekk bi mu nekkee fii ba léegi musul consulter kenn musul concerté wu kenn buy jël décision yi ni mel léeg ñu dajale nit ñi ne concertation fekk ñoom la ñuy décider décider nañ ko bu yàgg moo tax ñun biñ ñu waxee ci mbirum yokk député yeewi askan wi dafa ne bi muy décider pour des raisons politiciennes mooy inondation am na Kër Massar ci càgganteem moom ci boppam mu dem Kër masaar amu fa solution mu bëgg a ñu defal ñooñu mu daal di jël une décision politicienne ne def naa Kër masaar département boobu concerté wuñ laajuñu suñu xalaat waa Kër Masaar si boppam laaju leen seen xalaat bi mu demee nag ba ñu war koo jëmbal mu yaakaaroon ni loolu mu def noonu dina tax waa Kër Masaar kontaan ba woteel ko mu gañe mu dem foofu ñu duma ko ba sëlëm ko fa ñu ne léegi dañu war a dem élection législative naka lañ koy doxale mu gis ni nombre de députés bi ñu am actuellement posé na problème parce que foo def département nag war koo jox un nombre de députés mu bëggoon ñun ñu jël responsabilité ne dañuy yokk ñu ne ko suñu yoon newu ci ba nga koy def laajooñu débrouiller pour xam nooy def ak say député mu dem ne yokk na léegi nombre de députés yi yokk na ci juróom-ñaar ñu wax Sénégal yépp ni décision la moom dong du suñu décision waaye nag lañ ciy yokk te di ñaan Sénégal yëpp exiger loolu mooy yokk député bi warul tax ñu yokk fukki dërëm ci budget assemblée nationale parce que budget bi ñu jox assemblée nationale dafa ëpp fi mu toll nii li ma leen di wax dama koo xam ndax député la gisuma njëriñ gu assemblée nationale njëriñ Sénégal ci li muy doxee ci actuellement nii ba ñu war koo jox ay milliards milliards député boo kii budget boo xam ne ñoom ñu yor majorité di ay député séddoo lañ fa nekkee suba ak ngoon séddoo li may wax nag mun nañ ko démontrer tey li ñuy yokk ci peyooru député yi saa yu Moustapha Niass di fay député yi jël deux cent mille yokk ci enveloppe deux cent mille boo ko multiplié par cent soixante cinq député trente trois millions la trente trois millions munoon na munoon na créer vingt cinq députés yu bees ñu leen di fay chacun un million trois cent te duñu yokk enveloppe bi kon foo yokk sept député waru mun a justifier nga ne maa ngi yokki enveloppe bi sénégalais yi dañoo sonn xaalisu réew mi dañ ko yóbbu ci ci tabax école yi ci utal ndaw ñi liggéey ak ci am fulla waaye di fay ay politiciens rek yokk fay ay politiciens ñu nekk assemblée di tàccu naan ko aaye wal sa moome suñu Macky Sall waxoon nañu wote sax bu kenn noyyeti nañ ko wote su dee loolu rek fukki dërëm war ñu ko yokk ci ci assemblée nationale te loolu sénégalais yi ñoo ko war a njëkk a yokk sept député warul tax ñu yokk ay milliards ci député assemblée nationale naan dañuy jënd ay katkat yu bees dañuy yokk carburant bi dañuy yokk lii dañuy yokk lii mooy position yeew bi askan wi parce que ni ñu wax gis nga réew bu ndóolee ñàkk doole dañuy sakkanal li mu yor ñun xam nañ ni coalition coalition la ñu suñu doolee bëriwul moo tax ñu sakkanal ba ba def séminaire boo xam ne dikkeewuñu sax cent mille francs te peut suñ ko yóbboon feneen ak feneen wala am nañ ko doon defee mu dikkee ñu huit millions noonu la ñu war a yore réew lañ ciy génne ci bénéfice nag ñu dugal ko ci njëriñ loolu daal lañu ñu bëggoon wax di lancer un appel nag ci état bi ndax mairie Kër Massar sud bâtiment bu maire bi di dugal maire bi sax amuñu ko fi mu toll nii te lépp li ko andi mooy parax parax bi ñu def ba def découpage boo xam ne baaxul amul benn bâtiment administratif ak Kër Massar Sud benn bâtiment administratif dañoo obligé ñoom dem ci seeni pexe bopp dem léegi ji un bâtiment en dehors de la commune de Kër Massar loolu gàcce la comme nag état bi moo yàgg jël les dispositions amoon na sax un programme bu ñu tabaxal mairie yu bëri un bâtiment moom mi gaawantu def découpage boobu na góorgóorlu ba defaral commune Kër Massar Sud un bâtiment digne de son ba ñu mën a liggéey ñu ngi sàggane ba pare di créer des retards ba ñu mun ñëw liggéey lañ ca jublu nag xam nañ ko mooy dañuy xëy rek ne commune bi doxul délégation spéciale duñ ko nangu de mairie la boo xam ne Yewwi Askan Wi moo ko gañe jafe-jafe yi ñu nekkee ba ñu liggéey xam nañ ko te état moo leen ko teg ne bi teg jafe-jafe yooyu ba ñu mën a liggéey ni ñu war a liggéey ñu ngi leen gërëm leen sant salaam